bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibn abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim ixwatil kiram ashaabal maali saadatal ulama ayyuha saada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokki tedd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balu àq te di leen bal di ñaan yàlla yal nanu yàlla boole jéggal su FM seen rajo 98 point 5 kaddu gi bàyyi koo fii ci ndakaaru dellu siwaat naag yéen ci seen émission bi ñu tuddee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 lu nu am yàlla na nu yàlla lu nu ñàkkit yàlla na nu yàlla yàlla na yàlla gën a téyel boppam yàlla na nu yàlla gën a sàmmal boppam yàlla na nu yàlla gën a aaral boppam yàlla yàlla booleen ci jaamam yi mu gërëm yàlla na nu yàlla boole ci jaamam yi mu sopp bi jaay si wujud wa alami shuhud yàlla na nu yàlla ci ñi mu mbaa yàlla sunu giirug dund yàlla bu nu defati lu naqari yàlla yàlla bu nu waxati lu naqari yàlla bi jaay seydnaa muhammad sallallahu alayhi wa yal na yàlla yërëmal nu te jéggalal ñu suñu way dawee ci biir suuf sunuy way jur ak seen way jur sunu yaay ak seen yay ak sunu maamaati maam ya jiitu ji ñëpp yal na yàlla gën a jëflante ak ñoom ci yërmande ak ñeewante yàlla bu yàlla topp dara bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku fi mbaa nga bàyyi fi bor mbaa nga bàyyi fi loo war lijjanti fàtte koo lijjanti mbaa ñàkkoon ko mën a lijjanti la yal na la yàlla wuutu ci loola bu dee bor mu fayal la ko bu dee àq mu fayal la ko lu mu ci mën a doon yal na yàlla féete ñépp fa mu leen war a féete yàlla gën ci ñun foofa ci ñu ci ñun ci ñoom waaye yàlla gën ci ñoom ci ñun fii lañu leen bëggal foofa amuñu ko yàllaa ko am ñi dem bàyyi fi seen soxna ak seen doom yi ndaw ak ñi fi bàyyi seen njaboot ñépp li ñu bëggoon amuñu ko mënuñu ko yàlla lañ ci doon yaakaar ñoom bu ñu fi ñàkkee nekkit yàlla moom mi ngi fi foofee ñu nekkit lañu bëgg ci ñoom mooy yërmandeeg àjjana <clears throat> ñaan ko rek lañu mën a def kii ñu koy ñaan kenn la mooy suñu borom subhaanahu wa taala su loolu weesoo ñu doolee ñaan ci feebar bi épidémie bi nga xam ne moo wërngal këpp àddina bi tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla jeexal yàlla na ko fi yàlla jeexal ba mu jeex tàkk yàlla na ko fi yàlla jële ba mu jeex fi tàkk bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fépp mu àgg yàlla boom fa benn dangar yàlla yàlla wekki dangaram yàlla yàlla wekki xarañam yàlla bu kenn bi jaay si di wujud wa alami shuhud fa yàlla bu àgg yàlla sañ nga ko man nga ko yàlla nga ko def ñëpp jaaxle nañu ñëpp tiit waaye yow yàlla yow dara tëwu la dara jaaxalu la lépp nga ndar képp ñu ngi lay ñaan nga dox suñu digganteek feebar bii ñu tuddee coronavirus ak mbokkam yu mel ni moom jabet ak cancer ak tension ak siburoog sidaak ñoo ñëpp di ay mbokkam ak doomi ndeyam yal na yàlla jeexal leen tàkk dox suñu digganteeg ñoom aar ñu yiir ñu làq ñu fa yàq yeggul mbokk yi bu loolu weesoo ñu teggi sunu baaram fa ñu ko tegoon waxtu wi démb xam ngeen ni yonent bi alayhi salaatu waajal na xare bi te mooy xare Uhud waxoon na leen démb ni leen waaj na ko di hésité dafa war a génn Medina walla dafa war a génn dem Uhud xare ji ñi nga xam ne fekke wu ñoon badar ñoo bëggoon xeex am ngërëmu yàlla ndax ñi demoon badar am nañu ngëneel loo xam ni ñi demul woon amuñu ko loolu tax ñu yàkkamti woon xeex amaat ba ñu dem ñoom it jaayanteeg seen boroom dee ca xare ba mbaa ñu rey ay yéefar am tuyaaba ju toll ni waa badar looloo indi woon werante su ndaw si ci diggante bi taxoon na nag ñi naan nañ dem ñi duñu dem waaye sang bi mu jónne na leen toog bu ñu fekkee ñu xeex ak ñoom waaye ginnaaw bi nag lu wax jooju nag a na ca Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mooy naafiq bi ma doon wax ni la moom naafiq international la jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe ni ku ko gis defe ni dafa ànd ak moom jàpp ne da koy conseillé te fu bëggal lu baax fekk na lu mu yàqule moom la bëggul lu dul nit ñi sikk ko bëggul nit ñi ñi gis ci moom lu ñu ko waroon gis ba mu ne waxoon naa leen ko loolu rek la dox nag moom Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul waaye sangi bi alayhi salaatu salaam bi damaan yi bare ci la dugg nag sol ba jekk daani nag kon nag léegi dem rek fi sës na leen aw yoonu Uhud dem reyante ji lu ñu am jël comme déglu na déglu yàlla yàlla neewu ko demal neewu ko toogal ndax mbir dina toll foo xam ne nag sunu borom day ñëw rek yónni jibril mbaamu ilham ci xel mi ni ko defal nangam wala bàyyil nangam waaye bii nag sunu borom daa bàyyi rek ak xelam lu ko xelam may bu mu génnee sol yéreem ni sëmm taxaw mat sëkk nit egg ca kaw jekk lool tene bi armé wu war fa sama wu wax dul dul ni léegi nag génn rekk ci des ci la gaa ñi daan ah ñun ko def nañu lépp ndax sëriñ kat ab taalibe du ko jiitu fexe nañu ba mu génn ci suñu bëgg-bëgg te xamuñ lan moo nekkoon xelam xamuñ lan moo nekkoon xalaatam kon nag ñun li ñu war a def mooy jéggulu ko bàyyi ko mu dem ak xalaatam ñëw ni ko sang bi nga jéggal ñu kat ñun kat topp nañu suñu bëgg-bëgg ba tax nga solu te xamuñu lan ma doon sa xalaat xamuñu sa sa borom lu mun a wax sang bi ni leen wees na ab yonent moom bu mu soloo ngir xara ji du simi mukk ci ay verbal verbalité léegi moom xeexi rek moo ci des Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Salul mi nga xam ne daf ko ne woon bul génn ma dina toogal bu ñu la fekkee ñu xeex yow xeex ak ñoom jàppale la waaye génn ci biir dem di xeexi yónni génnee sunu doom yi di xeexi daal conseillé wu ma la ko moom nag ma ngay wër nag dëkk ba naan ataawil daan waasaan yi xale yu ndaw yi la topp topp seeni xalaat bàyyi ma man mi di mag di kilifa li ma ko digal defu ko ah léegi nag moom lu mu ci góobee ne ko gar ñamoon na ca badar moo tax mu defee ni eh, bii nii lay mel waaye bàyyi na daañ leen dóor ba ñu bëgg a dee de waa Quraysh géem a gis takku nañu de te duñu am ñaar yoon defet yii la doon wër di wax ci dëkk bi waaye boo nekkee kilifa nag te doo xalaat ni nit ñi di xalaate doo jëm fi nit ñi di jëm mën nañ laa rusee bàyyi la sa kàddu waaye nag danañu xam ni yow li ngay wax dëppawul ak li nga xamante ne moom nga waroon def te loolu da Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dugg na ci nit ñi di leen influencer waaye nag kenn topp ko ca yonent bi alayhi salaam génn na bisu aljuma nisfu shawal bàyyi na ci dëkk ba ko ñox abdullah ibnu mak abdullah ibnu ummi maktuum mooy silmaxa gi ma la doon nettali ni moom la ko yàlla doon yedde mu fal koy ilimaan muy atte jàkka ja diina ji ak nit ñi waaye nag tabaarkalla euh, la nga fay jànge rek mooy ndekete kon silmaxa amul la am dëgg dëgg dëgg mooy pasteef akuk njub rek mooy li am solo te loola nag dal na Abdulaay ibnu Ummi Maktub mii silmaxa silmaxa la waaye nag yàlla teg na ko fa mu ko war teg nag waaye am na ay xale yoo xamante ni mbokk yi bi yonent bi sallallahu alayhi solo ba pare dañu ni dañuy jóg ànd ji ak yonent te ñoom kat nag seeni at mayu leen ñu dem xeexi waaye nag takku nañu ñu dañu dem ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem xeexi ba lislaam am doole góor baax na jigéen baax na mag baax na gone baax na kon nag nañ leen bàyyi ñu dem ay nag dañ leen mujj tere daal bokk na ci xale yooyu usaamatu bnu saabit usaamatu bnu zeyd zeyd bii nga xam ne moom lañu woon ndox zeyd doomu muhammad doomam dañu woon day dem te boobu amagul mat dix-huit ans mbaa ca lay toll doomam jooju nag ku am taarix la dinañ ci wax tuuti incha allah zeyd usaama ibn zeyd yonent bi sallam tere na ko abdullah ibnu amr yonent bi sallam tere na ko zeyd ibn thabit yonent bi sallam tere na ko abu saadul hadrami moom itam yonent bi sallam dina ko toogal norman ibnu bashir ci la bokkoon ci ñu waroon dem zumrat ibnu jundub moom itam bëggoon na dem abu rafia moom it bëggoon na dem waaye Abaa Raafi man sax mujj nañ ko bàyyi ni ko demal ndax ay nit ñoo ko mujj ni ko ah, Abaa Raafi di ku man jam la te xale bu am jom la te mbërëntaan la waaw taqe la taqentaan la ku mën a xeex la sang bi salaam mujj ko jox kàddu ni ko kon demal mooy Abaa moom mu ne ndeysaan fa la mujj yam ñibbisiwul dafa mujj faatu wax na léegi ni Usaama ibnu Zeyd Usaama moom xale la waaye xale bu am jom la xale bu bëgg lislaam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di waajal xare Mu'ta moom mii la jox drapeau bi sang bi feebar ci diggante bi génn àdduna Abubakar toog joxaat ko responsabilité bi ko yonent bi sallallahu alayhi joxoon ku mel ne Omar ibnu Xattaab ni ko xale la mu ne waaye li yonent bi sallallahu alayhi defoon duma ma ko tebbi xamoon na ne xale la te teew du ko jiitaloon ci suñu kanam ñun ñëpp ñu ànd moom kon xale bi am na jom teel na xam responsabilité teel na xamit ni moom li ko war lii la ni ngi noonu itam euh, Seyd ibnu Saabit moom ku mokkaloon alxuraan la bokkoon na ci katabatul wax yi bu jibril daan indi alxuraan daawoon na bokk ci ñi daan bindal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax xam nga ne yonent bi alayhi salaatu ummi yi la mënul jàng mënul bind te itam moo jàngal ñépp loolu nag yéeme na kéemtaan sunu borom rek la nabil ummi yi la ummi yi mooy ko illettré lettre yi yépp da ko daan bindalu alquran ji yëpp da nga daan waaye lu ci waay wàññi mu xam ka waaye mbokk yi am na lu xew abdullah ibnu ubay ibnu zalul mooy naafiq bii ma la doon wax ni moo topp yonent bi rek alayhi salaatu wasalaam lu mu tëral mu ne ko tee ñoo defee nangam te la mu koy wax yëpp intérêt boppam dong la bi mu yégée ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam day dem uxut dafa daal dem indi mbooloo mu bari ca yahuud ya nga xamante ni ay aliyem la ñu woon waxoon naa ne awaa banu Qaynuqa ak leneen ci Qurayda ay aliyem lañu woon bi sang bi alayhi salaatu salaam jëlee pour dem dafa ne dem wooy leen ni leen nag sunu gan gi dafa am combat te bëgg naa yéen ñëpp ngeen jàpp ci combat bi yonent bi ni ko ndax ñii nga indi ndax gëm nañu ma gëm nañ ndax yàlla ma yónni wala gëmuñu ni yàllaa ma yónni Abdoulaye ibnu Ubayy ni ko ay la yéwén gëmuñu la de gëmuñu ni daal ni yàlla yàlla yàlla la yónni samay ale lañu su ma nekkee ci jàmm ñu nekk ci bu ma nekkee ci leen tam ñu nekk ci ma gis ni sama mbokk nga sama dëkkandoo nga yaa ngi xare ma wooy la ne ñu ñu ànd ak ñëw jàppale ñu yónni bi sallallahu alayhi wasallam nañu wàññiku nee leen nañu wàññiku man kat du ma ko ci ay yéefar ànd ay yéefar di xeex yéefar ña xeex yi ñoo ñoom kiif kiif benn lañu nañu préparé te xam ni même bu ma amee fa victoire su ma ñëwee ci seen kaw laa jëm duma ma bàyyi kenn ci kaw suuf te nangul wax ashhadu an laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah ngoog loolu nag mbokk yi leen ciy jàngat mooy umma islamique ni ñu leen raxee ci organisation yu baree bare bari yoo xam ni day am ci àddina bi lu mel ne aussi yi lu mel ne leneen ak leneen ak leneen ay jullit képp mën a tëju wax lañuy wax jël décision ya ñuy jël léegi yombatul ay jullit dong di xalaat mayeetuñ leen ko fexe nañ ba léegi sa tëralin yi ak doxalin yi daanaka ñépp ci àdduna bi ñoo ko bokk léegi loolu nag beneen affaire la boo xamante ni moom lay indi moo tax sanga bi alayhi salaam ni ko fa inna la nasta nastain bil mushrikina alal mushrikina man du sukkandiku ci yéefar di xeex ay yéefar mu ngoog booba nag ñoom jullit yi matoon nañu junni soldaar avant Abdullah ibnu Ubay di wàññeeku ak ñoomu àndal matoon nañu junni soldaar yéefar ni matoon nañu ñetti junni waaw ñetti junni ñoom matu nañ ko teewul ba ñu demee ba ci ba ci yoon wa itam am na yeneen trois cent treize yu wàññiku yoo xam ne Abdullah ibnu Ubay moo leen influencé waaw nekk seen noppi rek topp leen ko rek kii fa mu leen jëmee xamu leen ko billaay dina leen dugal ci kàmb goo xam ni du ngeen ci génn kii man maa ko xam yéen xamu leen ko dama ko teel a nand yéen nag moom dox leen rek yi daal mooy loolu rek dox leen rek Abdullah ibnu Ubay yaay noonu la nekk ci biir soldaar yi naa féq noonu lay mel soo ñëwee mu ree la akolaat la waa wax ak yow teg li yow sama waay nga sama nangam nangam nga fekk na loo yàqule rek mooma nee na naa féq piir dafay góoreyu am kàddu fu mu taxaw ni sëmm ñépp teg ko kilifa waaye bu waxee rek wax musiba mu defee dem def musiba Abdullah ubay ibnu ubay mii nii la meloon dafa àggoon ca kaw di njool ak ca kaw rafet góor yu am kaddu am courtoisie nga xam ne ni daanaka waxam boo ko déggee da ngay defee ni lépp lu ma la wax dëgg la fekk na lu ma la wax du dëgg te li ñuy wax nii euh, ñett ku ñu mënta tromper amul ñett a ngi nii ku ñu mënta tromper amul ba ca jëkk mooy jigéen ju rafet ci koñ nangu la sëy ku ko seet si mu dàq la mën na yàq lu bari mën na yàq ak l'humanité mën na yàq personnalité mën na yàq dignité mën na yàq dem ba sax dëkk ba fal fa yilimaan leen jafe moo tax ñu genre yu mel noonu mayee ñu sëy rek jarul kopp koppal ci kër jarul bàyyi ci kër jarul denc ci kër jigéen daal bu matee sëy yóbbu leen kër mu sëy mooy jàmm mooy jàmm askan wa ñaareel ba waxambaane wu nangu te liggéey te bëgg teraanga loolu musiba la nangu loo liggéey nangu daan sa doole te foo toll bëgg sol lu bees li nit am nga bëgg koo am bëgg am ci oto yi bëgg am ci kër yi bëgg am ci jongama yi te doo ñaq sàcc rek mbaa dirib leeg dugalante te loolu nag jigul am réew jigul aw askan ñetteel ba te mooy ba ca mujj mooy mag mu weex tallak bi jaaw te jomb la wax la ci ginnaaw dëgg jomb la fen waaw influence kilifa nga am nga influence nit ñi xam nañ la waaye luy faste sikkim rek ngay dox lu yàquk bokk lu yàquk diggante di nga gis jeeg bu ne ci koñ bi di sëy sëy bu rafet ñu yaakaaral na ni yow kilifa nga nga wëlbati ko bëgg neexu la ngay wax ci moom ay sikk di ko sosal ak di ko tegal yoo xamante ni du dëgg ba yàq xelu nit ñépp ci moom gis ndaw luy góorlu ci diine ji jàmbaar ci jàkka ji jàmbaar ci lislaam bi nekk fàkk tëdd jàmbaar yi fàkk tëdd ngay wax ci nit noppi nit ñi ak a complot ko teg xel ba nit ñi am beneen xalaat ci moom ba dootuñu ko wóolu noonu la naafiq di mel toujours naafiq day bañ jàmbaar toujours naafiq day bañ kuy góorlu te nag ku ñëpp kontaan ci yow rek sa yaay kontaanul ci yow Ablaye ibnu Ubay nag nag yii la doon liggéey ci wetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax yonent bi alayhi salatu salaam bi 313 si wàññi ko 300 sax la ñu woon 313 kon ñoom léegi 700 soldats rek moo ci des juróom-ñaari téeméeri soldats ñoo présenté wu Uhud départ nañu Madina jëm si Uhud bi ñu agsee waxtu suba teel lañu agsi ci lañu julli suba waaye nee nañu yonent bi sallallahu alayhi séen na ca sàppe ya sàppe yéefar ya ku ñu wax Xaalid ibnul Walid Xaalid ibn Walid moo féete ndeyjoor ci sàppee séen na leen ñu taxaw ndax ñoom jiitoo nañ leen fa ñetti fan mbaalu ko sax ëpp gis na Ikramatu ibnu Abi Jahlin moom itam ca fetu càmmoñ nga Amr ibnul Aas séen na ko moom itam ci digg bi mu taxaw ñu fas yéene jaamaarloo ak jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jullee ba pare ci la tëkk ñetti drapo benn bi mu jox ko waa laws yëkkati ko teg ko ci ku ñuy wax capitaine Usayd ibnul Xadayr ci waa laws la bokk waaye ci jullit la bokk beneen bi mu jox ko waa Xasraj jox ko beneen capitaine bu ñu wax Xubaab ibnul Mundir am na ñun sax ñu ne Saad ibnu Ubaada la waaye kenn ci ñoom la mu takk beneen drapeau nag jox ku ñu wax mu jox ko waa muhaajiruna mooy ñi ànd ak moom jóge màkka ñi ne ñu Seydina Aliyun karramallaahu wajhahu la ko jox am nañu ni Musab ibnu Umayr la ko jox yonent bi xool na sàppe xool jullit yi jant bi soo lépp jaamaarloo amagul waxante amagul fa lama faraga al arab wa gaabat alchams azana bilal fa salla rasul sallallahu wa sallam binnaas salat almaghrib summa azana bil asha fa salla bihim wastaamala al harsi muhammad ibnu maslamati bi ñu xam den toog nañu jant bi so yonent bi sallallahu alayhi wax bilaal ni ko noddal timis ñu noddu timis lépp ñu ngi ci préparation yi ak xool place yi nag la ñu mën a tàmpaloo yéen bi sallam daal di bilal noddu timis mu jiite leen ñu noddu gee mu jiite leen sang bi alayhi salaam daal ni léegi nag ana ñan ñoo mën a taxaw volontaire ñu wut ay garde yoo xamante ne ñooy taxaw garde soldats yi xeex amagul wax amagul waaye il faut ñu ñu am ñu garde soldats yi ba duñ ñu bett ndax noon moom doo ko wóolu cent pour cent nee na ku ñuy wax Muhammad ibnu Maslama moo jóg fii xamsuuna rajulan yatuufuuna bil aks bil askar moom moo jël cinquante soldats moom Muhammad ibnu Maslamat mi di essayante comme ni ko gaañi def ni ku taxaw ñaari waxtu nga dem keneen ñëw ñeneen ñi noppalu noonu lañ ko doon awante ba bët set moom nag yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy jiitu jullit yi ki ko doon garde mooy ku wax dabaat ibnu qays moom moo nekkoon garde kooram moo sol mbubbu koŋam takku ba dëgër jël ay ngànnaayam geetaru fanaane xool ba bët set di sàmm yonent bi sallallahu alayhi lu yëngu mu tëb taxaw eh, bi ñu xëyee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ni ana ñan ñoo xam nag Uhud ndax tey lañu war a àgg ñan ñoo xam fan la Uhud nekk ku ñu wax Abu Qaysama moom moo wax ni moom xam na yoon wi kooku moo dirisa yoon wi ànd ak sa jullit yi ak saxaaba yi di yéeg ci montagne wàcc ba agsi yonent bi bi mu agsee xool place bi xool placement yi daal dinay placer ay soldaaram placement stratégie bi mu paree dafa daal di jël <clears throat> juróom fukki soldaar jël ku ñu wax ab Abdullah ibnu Jubayr ni leen na ngeen yéeg ci kaw montagne bi bi nga xam ne moom lañuy wax Uhud ñun dañuy fas yéene jàkkaarloo ak yéefar yi daañu taxawe gauche taxawee droite am ñu taxaw ci digg bi fas yéene jaamaarloo ñoom yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci kaw montagne bi bu mu yàgg yàgg yàgg nag ba ngeen wàcc ndax yéen a yor suñu sécurité rekk waaye na ngeen taxaw ci kaw na ngeen taxaw ci kaw lii feeg waxuma leen wàcc leen bu leen wàcc tànk woowuma leen bu leen wàcc même bu ngeen séenée ñun ñu am victoire dàq yéefar yi ba ñu daw tànk néew ma leen wàcc leen bu leen wàcc na ngeen reste ci place bi ndax yéen a tax ñun ñuy am doole bis bu ngeen juumee ba wàcc dañu dund lu metti loo xamante ne yéen ñëpp di ngeen ko bokk yëg waaye nag bu ngeen séenee itam yéefar yi ñun diñu di ñu daggate benn par benn di ñu rey ba mane ñu tànk déggu leen sama baat leen wàcc leen bu leen wàcc ah dégg ngeen li ma leen wax Ablaay ibnu Jubayr daal di d'accord daal cinquante soldats yi juróomi euh, maanaam juróom fukki soldats moo nekkoon seen capital nekk ca kanam waaye mbokk yi mooy ndigal ak weddi ndigal dal na jullit yi dal na leen dal bu metti ndekete ndigal lu am solo la ndigal caabi la bu ëppee du ubbi bu manqué du ubbi saa bu ñu la nee defal nangam nangam jooju ni la ko waxee def ko waaye bul ko changé jamono boo ko changé di nga dund lu metti loo xam ne doo ko mën a nettali kenn loolu moo dal jullit yi keroog xare Uhud mu métti lool sang bi alayhi salaam dina ñëwaat nag ci mooy ndigal li waaye wax leen rek pour le moment leen lii leen yonent bi sallallahu alayhi waxoon defuñu ko weddi nañu ndigal moom alayhi salaam def la leen neex waaye mujj na leen weq xat xat xat xat mu ngoog sang bi alayhi salaam dal di jël drapo ba ma leen waxoon ca commencement ba ba ma joxoon waa Laws Xasraj ak muhaajiruna jël nag drapeau muhaajiruna jokk ku ñu wax Musraf ibnu Umayr mooy li gën a siiw ci li wax waaye yonent bi sallallahu alayhi def na discours discours bu am solo jàkkaarloo na ak jullit yi dal leen ayuha nnaas uusikum bi ma awsani llah fi kitaabihi min al amali bi taatihi wa tannaahi an mahaarimi thumma innakum bi manzili ajrin wa suxrin liman zakara llah liman zakara allazi liman zakara allazi liman zakara la si alayhi suma wattana nafsuhu lahu ala sabri wal yaqin wal jiddi wal nashaat fa inna jihaad al adwi shadidun karihun qalilun man yasbiru illa man azama allah illa man azama allahu lahu rushdahu fa inna allaha maa man ataa wa inna sheytaana maa man asaa fastaftixu acmaalakum bisabri ala aljihaad waltamisu bi zalik wa ma waadakum allah wa aleykum billazi amarakum bi fa inni harisun aleykum ala rushdikum in ixtilaafa wa tanaazuci wa tathabuti min amri alajizi wa daaf wa huwa mimma la yuhibbuhu llah wa la yutihu nasr sang bi alayhi salaatu wasalaam lii la tàmbalee xutbaam waxtaan ak mbokk yi saxaaba taxaw ne roog sang bi jóg taxaw wax ak ñoom li na yohannas yéen nit ñi yéen soldaar yi yéen julit yi usikum maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp di leen dénk bi ma awsanillah ci li ma yàlla dénk fii kitaabihi ci téeréem bu tedd bi li ma yàlla sant maa ngi leen koy sant li ma yàlla tere maa ngi leen koy tere waaye maa ngi leen di dénk mi na amali bi taati maa ngi leen sant ngeen topp yàlla bëgg yàlla sopp leen yàlla te xemem yàlla wata naahi te ngeen bàyyi ay tereem daw leen an mahaarimi yi lépp lu mu xaraamal lépp lu mu lu mu lu mu lu mu gedd daw leen ko mu ne su may nakoom bi manzilin xam leen ni nag bis ni tey fii ngeen taxaw yéen a ngi am dayoo wàccuwaay bu réy réy réy wàccuwaay ju pay wa suxrin ak puukare wàccuwaay boo xamante ni ku ci dee fii ngeen toll nii tey ku rot ku sa bakkan rot duñ la sax sëng deret jiir toq ci sa yaram moom lañ lañ xàmmee ëllëg yamal xiyaam te xetu misk gi gën a foor nga xam kenn du ko am yéen rek yéen koy am daanu rek a tee ngeen dugg àjjana seen rot seen bakkan rot rek moo tee ngeen dugg na ku ci mucc itam te deewuloo na xam ni door suñu la fàtte ba abadan ustuwaar dina bind saw tur te di nga am ndam fu ñu dox dañ la tudd fii ba àdduna bi di tukki dinañ nettalu seen xeex bi dinañ la seen taxawaay boobu kon nag na ngeen fàttaliku seen bopp na ngeen not seen bakkan xiir leen seen bakkan ci muñ wal yaqiin ak am certitude ni lii ma leen wax dëgg la na ngeen dër te am ngor na ngeen sawar fa inal jihaad al adwi ne jihaad ak sa noon shadidun lu tar la karihun qalilun man yasbiru tar na métti na néew na ku ko mën a muñ jàkkaarloog noon mu wóor na ni sa bët mën na tuuru sa loxo mën naa damm dagg sa tànk mën naa damm mën nañ laa rey mën nañ la loos nga dee nee na bari na ñu ko mën a ñu ko mën ta dékku illa man azama laahu la rushdahu xanaa ñu yàlla baaxe ak njubam yàlla baaxe leen ak mbaax ndax jàmbaar amul ku ñu dimbal rek moo am sang bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi continué xutbaam mu leen fa inna allaha maa man ataa yàlla nag ñu ne haa mu ni mi ngi ànd ak ku ko topp képp koo topp ànd xamal ni yàgg yàlla yéen a ànd waaye ku ko moy nag yaa xam foo jëm mu ne wa inna seytaana maa man asta seytaana nag ku wedd yàlla la ku mooy yàlla la ku féttéerul la déggalul yàlla dara moo tax képp ku mooy ndigalu yàlla jàppal ni yàgg seytaana yéen a bokk fu ngeen jëm yéen bokk fu ngeen jëm de rikk waaye fastaftihu amaalakum bi sabri alal jihaad na ngeen sàkkoo ubbiku seen jëf yépp ci jihaad ji ci muñ na ngeen dëgërloo muñ na ngeen sukkandiku ci muñ na ngeen sukkandiku ci ngor ak jom rek waaye na ngeen jomb yàlla mi nga xam te ni moo leen tiim bëtam boobu xool leen gis ci yéen ak yox-yox wala mu gis ci yéen ak défiance wala mu gis ci yéen ak ñàkk jom wal tamisu bi zalika xemmem leen ci lii ma leen wax ngërëmal yàlla ak kontante yàlla xemmem leen ko xam leen ni kat yàlla li mu leen dig mi ngi nii taxaw mi ngi nii taxaw fa inni harisun aleykum ala rushdikum xam leen ni man mii yàlla ma yónni ci yéen may seenub yonent jibril di wàcc di indi alquran ngeen di ma gis di ma dégg ku xër ci yéen la ku bëgg ngeen baax la ku bëgg ngeen dugg àjjana laa ku bëgg ngeen jubóog seen borom laa mu leen inaxtilaafa maa ngi leen di xamal ni wuute wa tanaazu ak xëccoo wa tasabut ak merum biir ak jéppante min amril ajisi wa daaf day wane rek ak lot ak tële donc te huwa jooju loolu le mimma laa yuhibbuhu llah dafa bokk ci yàlla bëggul te walaa yutixi nasar yàlla du joxe ndimbal mukk yàlla du joxe ndimbal ba abadan abadan abadan mu ni leen nag bépp mbooloo boo xam ne ñu ngi sàkku lëf ci seen borom te xëccoo nekk ci seen biir ak weranteeg mbañante yàlla du leen te may mukk ndam ba abadan kon nag nangeen bëggante na ngeen soppante seen sàpp yii ni mu ànde naka seen xol yi ànde seen sàpp yi ni ngeen taxawe yéen ñëpp am benn objectif naka xol yi naka xol yi dëggal yàlla kat xajul fenn ci nit loolul ci xol kon jàppaleen ni yàlla ngi ànd ak yéen yàlla yéen la faral ku rot nga tol nii sa àjjanaa ngi taxaw ku rotul sa ngërëm ak sa àjjanaa ngi taxaw ëllëg sang bi alayhi salaatu salaam wéel xutbaam rek ba yàgg mu leen ayyuhan naas hadadun fi sadri anna man kaana ala xaraamin farraqa allahu baynahu wa bayna dana di trop sama sama dënn ma ñàkk leen koo wax ci képp koo xamante yaa ngi ci lu xaram yaa ngi ci jalgati ba pare di def dara di ko tudd yàlla lu dul yàlla deñ na ci yow séparé na ak yow loolu moom nañu ko bokk xamandoo mu ne nag képp koo xamante ni xemem nga yiwu yàlla fekk yaa ngi won ci lu naqari yàlla yaa ngi woon ci tooñ yaa ngi woon ci lu lëndëm riba njaaloo sàcc alal nit arnaque ak hold ku nekkoon ci loolu ba dégg kàddu gi tuub bàyyi ko bañati koo def ne ne na nga xamante ni xafarallahu lawu zan xafarallahu lawu zanbahu yàlla na la jéggal say bakkaar yu jëkk yi ak yu mujj yi mu leen képp kon yaa ngi ci musiba ba bis jot nga tuub fas yéene bàyyi loolu doodo ko def nee na daañu soppali yi wo bàkkaar yooyu yëpp ci mbaaxu yàlla mën na ko soppi defal la ko tuyaaba ba demee ci lax dari yu it ngi wax ni wa shuruutu tawba shartey tuub an nadamu ala ma faata mooy nga riccu ca lew lala wees wa niyatu ngam yéene ala yahudu ba doo dellu ila zan bi ci bakkaar fi ma baqi min umri yi ci la la dese ci sëg dund sang bi aleyhi salaatu wa salaam mi ngi wéyal xutbaam sa lépp nag saxaabaa ngi ne rogg jul yaa ngi ne teg weñ yëngatuwul dara yëngatuwul ñëpp ne teg sang fi mu taxaw di wax ñëpp di ko dégg yéefar yaa ngi ca boor bële ñoom itam ñu ngi seeni manière bopp ñoom ko amul yàlla mënoo wax waxi yàlla tëgg fecc distrair lépp léggin te yooyu lañu nekk ndax jàpp nañ ni loolooy tax ñu am jom loolooy tax ñu kii maanaam ngoog ñun danañ dinañ koy def ñun ba sunu événement yi bëri yu nuy am discours yi nu war a tenir ak xale yi dañuy jàpp ni ci musique bi dañ ko war a jaarale mbaa ci comédie bi dañ ko war a jaarale fekk na am na discours yu jom yoo xamante nii day yokk nit ki jom am na discours yoo xamante ne day te nit ki nga xamante ne ni sa deret mooy mooy laaj ci jooju jamono deret dafa foor xale yi bu ñu dee dem xare ji maa ngi bëgg a d'Afrique ci basket bi ci football bi ci làmb ji lu mu ci mën a doon même ba ñi nga ni ne dañuy def làmb di bëre bokkoon na ci discours discours jom yoo xamante ne dañ la koy pikir ñu ñoo ngi fàttaliku bi ñu nekkee ndaw bi lël xewee lël bi mu xewee nga xam ne ak jamu jamu tuñ njamal siiñ sa bàjjen moo daan ñëw ak jébbale yooyu yëpp loolu la bàjjen bàjjen moo bokk ak bàyyi moo ba moo bàyyi bokk ndey ak bàyyi baa ñoo bokk bàyyi baa ñoo bokk ndey bàjjen daal mooy bàyyi mooy ñëw wax la sa yaay ji li mu nekk ci kër gi wax la sa bàyyi wax la say maam wax la koo donn wax la loo donn flambeau ba ni mu egsee ci yow musu ñoo dàq kenn ko bokk ci ñun musu wane ginnaaw yooyu mooy moo daan firi ñaani bañ na oustaz Alioune bañ na oustaz boo waxee oustaz mu ne la ñaani nangu na léegi <laughs> mu ngoog ñaani bañ naa ngoog loolu mooy bañ moo dee dem Coupe d'Afrique ñu war a woon nit ñi def cérémonie bu doy waar wax ak yéen kàddu yu am solo kàddu yu jom fàttali leen réew mi ngeen di dajeel Cameroun jël na ko nangami at Côte d'Ivoire jël na ko Congo jël na ko Maroc jël na ko Algérie jël na ko ci dëkk yi nga ñooy sunuy nawle ñun day ñoo ci jëlagul tey nag toll ngeen foo xamante nii mi ngi seen tànk mi ngi seen loxo sigil leen réew mi ñaanal leen ñii ñaan ñaan ñii ñaax di ñaax sang bi alayhi salaatu noonu nii la jàngale nii la nekk ak saxaaba yi foofu la toll nii ak ñoom waaye sang bi kon ne rek di wax ak ñoom ñëpp ne tekk mu ni leen wa man salla wa man salla alayya salla allahu alayhi wa malaikatuhu ashran sang bi ni leen nag dalal leen seen xel da xam ne mii man mii yàlla boole ma ak yéen ma dem seen yonent yàlla bàyyiwu ma yàlla bàyyiwu ma jibril léegi la fi jóge nee na ma naa leen wax ni képp ku julli ci man génn julli yàlla ak i malaakaam daañu julli ci yow fukki julli allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammadin nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala ruuxi sayidina muhammadin fi al arwaax wa ala jasadihi fi al jisaadi wa ala qabri fi al quburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammadin nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaali azim inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin yonent bi alayhi salatu salaam nee na képp ku wax képp ku julli ci man génn julli ñun nag mënuñoo julli ci moom xamuñu nu ñuy jullee ci moom moo tax ñu ni julli ñu ci moom ñu barkeeloo ci yow mi xam sa waa ji yow mi xam dayoom yow mi xam martabaam fu mu toll jullil ñu ci moom moo tax ñun julliwuñu dañuy sàkku yàlla mu jullil ñu ci ci moom def naa mooy gën a matale ma mu nag wa man kaana yuminu billah wal yawmil axir fa alayhi bil jumaa yéen bi saa sam nag xam leen ni julli juma farata la wàcc na yàlla moo nu ko sant ñu di ko def képp gëm gëm yàllaa ko yonentam gëm bis bu penc ba muy alaaxira yowmal qiyaam na ngay saxoo julli julli juróom eh, na ngay saxoo julli juma julli julli juróom moom wàcc na depuis màkk ku gëm yàllaa ko yonentam na nga julli juma na la wóor ne kat képp ku sàggane ñetti juma yoo xamante ne amuloo ngànt lu tax ñuy wax nga ñàkk ko julli bind nañ sew tur ca way sàggan ya kon na ngeen sax ci julli juma nangeen ko fonk na ngeen ko farataal bu kenn sàggane mun nag illa sabiyan illa sabiyan aw imratan aw maridan aw ala aw abdin li mu nekk nekk farata yépp nag ba mu des xale bu góor bu masooragul bu ko defee baax na waaye waru ko ku masooragul julli juma waru la aw imraatun wala jigéen jigéen tam julli juma waru ko su ko jullee nag am tiyaaba ju rëy ju ju yaatoo yaato yaatu waaye nag bu ko deful tamit amu ca bàkkaar aw mariban wala gan gan julli juma wàcc na ka mari maridan maa ngi naan <laughs> feebar laa bëggoon wax ko feebar aw maridan wala ko feebar boo feebaree bokk na ci ngant yi yoo xamante ni doo mën julli ji mu ngoog aw ala safarin maa ngi nekk ci tukki aw abdin mbaa jaam boo xamante ni dañu ko moom jaam dañu ko moom kon wax naa la xale bu masuragul ak jigéen ak ku feebar ak ku nekk ci tukki ak ku jaam juróomi ngi yoo xamante ne ni jamaa waru leen mu nag mu des nag bu dee lu mel ne épidémie bi ñu doon wax fii ñu xamante nii jumaa yi bare bare bare bari tëjoon nañu leen ngir doon taaxiir lu ba xam fan la feebar bi di mujje ndax ni ñu ko déggee ci Europe dégg ko ci Asie muy faagaagal ay nit ay milliers de milliers de personnes taxoon ñu ni ko na leen te jàkk yi en attendant te moytu rassemblement bi loolu ngànt la loo xamante ne l'islam dina ko nangu waaye bu ñu demee am ci tuuti nag gain de cause wala ñu am ci tuuti nag loo xamante ni pexe la bu booba nag tijji jàkk yi day day war nag ñu ko tijji nag te julli ji bu fekkee am nañ ci benn pexe rek boo xamante ni man nga faa dem ba jógee fa te doo fa jëlee jàngoro ji doo ko fa yóbbu bu baaba nag dañu war a tijji jàkk yi ma ngoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni leen nag képp koo xam ne nii séddoo nga yàlla xamal ni séddoo nga lu baax sa loxo tonuwu na am nga la nga war a am mu ni man kat xam leen nii sama jaan wàcc na ci yéen xamuma benn jëf ju baax lu dul jëf naa ko ci seen kanam sant leen ko ngeen def ko xamuma itam benn bu bon boo xam ne nii bu ngeen ko defee yàlla mere leen lu dul tere naa leen ko te defuma ko ci seen kanam bàyyi naa ko tere leen ko te bàyyiloo naa leen ko ngir lan ngir xemmem loo leen yiw yàlla xemmem loo tam leen ngërëmu sunu borom subhaanahu wa taala mu leen ajmilu fi talabi risqi nangeen rafetal seen wutu seen wutum alal bu ngeen dee wut alal neen na ngeen ko rafetal wa ajmilu fi talabi risqi rafetal leen bu ngeen dee wut alal rafetal leen waay rik bu leen ñaawal bu leen këf bu leen sàcc bu leen kart bu leen luxus bu leen jël bu kii suule bu kii déedéet mu leen yéex a am wërsëg bu mu tax mukk nga def lu xaram ngir am wërsëg dem ci jibarkat mbaa ci buxaabakat mu dagg sa baaraam mbaa nga am góomub robaale mbaa nga am doom joo sacrifié mbaa nga am jabar joo sacrifié ngir alal nee na mukk ci àdduna te loolu mel na loolu léeg nga dégg ko ci pénc mi ku ñu jàpp ku daggate ay doomam mbaa ko ay jabaram mbaa nangam nangam fekk na jabarkat moo ko wax rek ni ko fexe faw nga def lii fala nga def laa rek bëggub dërëm tax nga def loolu am na mu même ñu reyu sa jabatam dañ koy teg dof mbaa ñu liggéey ki liggéey boo xamante ni dootul nekk nit ngir rek nga am alal luy alal alal du dara man nga koo am bala nga ciy jariñu mu réer mën nga koo am mu soppi ko ordonnance mën nga ko mën nga ko yépp am na ko l'essentiel daal lépp loo am ba jariñoo ko xamal ni boo ne woon tekkit mu dugg ci sa loxo loolu moom lu wér la kon nag bu kenn def lu xaram bu kenn sàcc bu kenn def loo warta def mu leen qad bayyana llaahu lakum alxalaala walxaraam wa maa baynahuma umuurun mushtabihaat lam yaclamha lam yaclamha kasiirun min annaasi illaa man azzama allaahu fa man tarakaha xafisa irduhu wa diinuhu wa man waqaa fiha kaana karraayi ila janbi alxima aw shakka an yaqaa fiihi wa laysa malikun illaa walahu ximan alaa wa inna xima allahi maxaarimuhu yonent bi sallallahu alayhi di wax ak saxaaba yi ñépp ngeen tekk mu ni leen xam leen ni kat li araam leer na nañ li dagan leer na nañ yi ci diggante bi ay mbir layu lëndëm yoo xamante ni leerul lu mel ni am tux cigarette waaye nag bu ñu xoolee ci jamono bi xam nañu tux dafa xaraam ndax laa tamudanna aydiyakum ila tahlukati bu leen xaru kay ku ne xam na ni xaru ngi tàmbalee ci tuxum cigarette akum poon booba science ñëwagul ba indi cancer de fois nit du tax mukk du tux mukk cinquante ans yu ma amul feebar boobu kon loolu xaru la ba waaj ñëwee ci sëñ Babacar Si radiyallaahu tam ni ko si man ne maa ngi tux ndax disuma fu mu araame mun ko ah, xanaa jàngoo alxuraan mun ko ah, jàng naa alxuraan kay baqara ba naasi mun ko baqara ba naasi tàmbalil mu tàng faatee ba ci wala daalin daal ni alif laam miim yàllaa xam li mu ci namm sëñ baabu kas si nga tege sa baaram ndax li nga naan jàngoo ko ndax nekkul fii nga naan yàllaa xam li mu ci nam kon umurul mustabihaat yi lëndëm te leerul bokk na ci yu mel na yooyu mu ne nag képp koo xam ne fekk nga lu lëndëmul maanaam loo xamante ne leerul te lëndëm amoo te nas moo te dara waaye mën na yàq nee na nga moytu ko ba dew ko def nee na sa der rafet na sa diina rafet na waaye ku fekk ku lëndëm nga ne ci lëcc di ko def naan waxuñu ci waxuñu ci waxuñu te mu wóor ne baaxul na la wóor ne sa diina lëndëm na sa der lëndëm lépp saaba yaa ngi taxaw yonent sallallahu alayhi wasallam mi ngi mel ne rek ab sàmm bu ñëw ci ab tool gis ñu tëj tool bi ak ay barrière muy sikki sàkk naan téema bëtt jàll ak téema jaar ci biir yow xam ni kay barrières yi comme gis nga ko xam nga ne dañ koy tere mu ne nag walaysa malikun illaa wala himan buur boo gis am na garde corps am na ay frontière ala inna himallah maharimuhu euh, ga euh, garde corps yi suñu borom yi nag mooy yu xaramam yi li mu tere mooy frontière mi kon bu kenn bët frontière waaye mbokk ñu teg suñu baaram foofu ci Euh, xutba bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ak saxaaba yi ñëpp ñu ngi taxaw rek ni tekk di xaar songo amagul dara amagul waaye ñoom ñëpp ñu ngi jaamaarloo mi ngi ñaax ay soldaaram euh, trois euh, sept cent soldats la yoo fekki trois mille yéefar yi trois mille lañu jullit yi di sept cent kon nag ñu teg seen baaram ba suba ak jàmm incha allah oustaz Alioune Sall ngi nii taxaw bu paree rek ñu bàyyi ko mu dugg ak moom ci tafsir bi bu pare ñu jox imam Momar Seck ci dimanche bi incha allah seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi Pape Ablaye Dieye ci ci technique bi bu guddee incha allah zéro heure dix daañu ñëw ak ci gungekoor koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.